di jagleel sama bokki taalibe yi murid di jagleel sama bokki taalibe yi murid nag. fàttali. fàttali. lu jëm ci sëñ Touba. fàttali lu jëm ci sëñ Touba. wasulu xati man yuridu tarbiya wa man yuridu tarxiya. ila tawalifi yaqudu llahu. ila tawalifi yaqudu llahu. asraara laa ilaha illa llahu. asraara laa ilaha illa llahu. afistuma sinat ani dafatiri. afistuma sinat ani dafatiri. fala takun an xidmati bi fatiri. fala takun an xidmati bi fatiri. ñu ngi fàttali loolu muy yeesal yoonu murid yi. ñoo leen di fàttali loolu muy yeesal yoonu murid yi. ak di fàttali li nga xam ne teew te xam nañ ko ci ci mujj. ak di li nga xam ne. ñu ko xaman ci mujj. ña ko xaman ci mujj. ku ko mas a jox sa doom. ku ko mas a jox sa doom. waaw boo demee nga nga jàngal ko te. boo nga te te yar ko te liggéeyloo ko. boo demee nga jàngal ko te yar ko te liggéeyloo ko. maa ngi woote loolu nag ci sama daara yi. maa ngi woote loolu nag ci sama daara yii. fi ma sañ ci xel koom. fi ma sañ ci xel koom. Hmm, donte la yëngu ko it donte la yëngu ko noo ngi barkeelu ci waxam jooju. don donte la yëngu ko it ci wax jooju. yi. di ko fàttali murid yëpp. di di leen ci woo.